qui a remplacé mort ñu ne Mort du Dior Vision. Ben, euh, euh, affaire nomination yag na am erreur affaire nomination des fois nga gis directeur ñaar ñu ñaar yoon directeur na am ay erreur euh, pour ni rek infaillibilité mom nit amu té gis ngeen direction am directeur après dañ ko dem ay loolu day am moo tax ma ne la Diomaye mënu contrôler loolu lépp lépp lépp am na leneen lu muy def lu dul vraiment nekk xool gis bi kii lan la tudd donc Momar Dior Thiam Siri Fall bi ko remplacé c' est un vrai produit du système infiltré boo xam ne PDS la jóge jóge PDS dem APR jóge APR tey mi ngi Pastef nekk na chef de cabinet Modou Diagne Fada bu mu nekkee ministre de la jeunesse nekk na chef de cabinet Mimi Touré conseil économique et social environnemental mais pour la même personne boobu Mimi Touré moko ko indiwaat c'est la seule personne dans l'histoire du Sénégal qui a été chef de cabinet de deux personnes différentes mu quitté PDS dem APR tay jii PCA ci démb dem ci buñu bu dugal Samba Dia Samba Ndiaye dugg na moom tamit. Naby Vision. ah bon souvent pour sama loxo ñëpp. mi ngi tudd Sidi Bara Fall moo remplacé Mor Dior Thiam ñu tudd Mor Dior Thiam c' est le même cas que Samba Samba Ndiaye même exactement moom la <laughs> am na ko ko xam mais nag du Sidi Fall mi nekk ci Mimi Touré Mimi 2024 très bien donc Mimi dafa yor listam de Samba Ndiaye mi sax bugguma ko woon wax nag ngeen baal ma mais kooku moom jaral la ma lu ne Mimi Touré moo ko fi indi Mimi mooy defar base moo indi ñun yéen a wax kële du bi kooku Mimi Touré moo indi moo indi Samba ñi PCA yi ci bëri ñu ñu mujj defar Mimi Touré leen fii indi Samba Ndiaye Mimi Touré ko indi Sidi Bara bu ne woon Mimi 2024 Mimi Touré ko fi indi il se dit opérateur économique amul benn société boo leen seetloo dañu bind Sidi Bara Fall économique bu fan bu fan amul benn société benn société amul Nabi Vision. Et pourtant maa yore fi ay vidéo yu muy saaga Sonko fii di a toujours attaqué Ousmane Sonko bu la neexee ngeen nam xool émission yi dem le bind de di Bara ci internet ngeen ngeen xool mooy nekk si di Bara Fall tous les jours c'est Mimi chez Mimi Touré di organiser les audiences politiques du opérateurs économiques. te un opérateur d' audience mooy mooy gérer audience su Mimi chaque jour mi ngi kër Mimi Touré <laughs> Mimi bu ko turam ñu def ko PCR pourtant raw ne leen moo tax ma la intrigué dañu bëri de mooy nekk suba ngoon dernier Mimi Touré naan opérateur économique benn diplôme amu ko moo tax boo toogee Sénégal dégg gars yi <laughs> lu bëri sénégalais xamuñu da ngay toog dégg Sénégal ñu naan la ñenn ñi naan la. compétence compétence mais ñu ci bëri gi ci amuñu benn compétence kon nañ leen amuñu benn compétence ñu ci bëri ñu fi amuñu benn compétence dem leen ngeen xool yi Sidi Bara Fall war ma tegal leen sax benn émission te lu mu waxul seen Sonko amul loolu moo waxul jaar na fi rapidement rek s'il te plaît alors li ma bëgg ñëw ci mooy man bu ma la déggee ni nga décrire président mhm. tey dama déglu un leader mhm. de l'opposition notamment le président Ousmane Sonko mhm.

yàlla yàlla ko. loolu man xam naa ne ni Sonko convaincre la sax yow mais bon dinaa dinaa dinaa la wax nga Pape. xam nga nag loolu du mais bàyyi ko ñu. waaw waaw waaw waaw euh, gis yow da nga yàgg encore sur la scène. xool léegi yéen yéen am taare dem déglu ko parce que dafa gudd. kii lu mu dul yàq Sonko awul PCA la ministre ko indi ñu ngi xeex nii yëpp. Mimi Touré la ñu Mimi Touré mu xamoon ñu bokkoon APR nekkoon fa di ko yàq Sonko lu mel ne xame di ko ko Dakar di ko ko ñambaan du wax ñooñu ñëpp mais Samba Ndiaye moo ci siw ci tam PCA la de ñu mee ko indi comme nu mu indee Samba Ndiaye bu mujj bi PCA 80 pour cent Mimi Touré rek ñëpp ay saagakatu Sonko lañ. bi Vision. te amuñ profession nag. moo boo toogee Sénégal ñenn ñi nga xam ne yëguñu lu xew naan non waa compétence nangam nangam ñu duñ compétence ñu politique moo leen ci dugal politique. réew mi ba léegi am na ñuy dugg am ay post politique mel ni partage di gâteau mi ngi ci biir am na ñoo xam ne gâteau gi dañ cee dañ cee partage lañ ci am am na ñoo xam ne dañu ñëw pour liggéey mais am na ñu am partage di gâteau. am na ñu ko commencé xam <laughs> dafa daf leen rëccoon moo kii xam naa na ngay daw lépp ngay daw commencé nañ dem xooli kii vidéo yaa ngi lu mu dul wax Sonko nee lu mu wax sax du dëgg bu boo lu mu dul yàq Sonko amul ci ñaawtee lu mu dul yàq Sonko jël Macky defoon ko yàlla mais kii tey donc moo tax ma ne waa Pastef nañu gëm ñu ñu am nañu wóolu seeni i nit buñu nekk ñukk seen i nit di jëli ñii ñu leen di proposé ñuy jël dañuy mel ni ñoo xam ni dañoo bañ seen ndono loolu la ñuy woowee bañ sa ndono wala soxoree sa ndono. Naby Vision. soxoree sa ndono loolu lay wane dem ba bàyyi say nit yu ànd ak yow gëm la gëm sa projet rayante bay bëgg a dem ñun lépp ñëpp na yàq bu naqari. ni turee ñëw jël ay listam yu ngand di dugal nga ñu koy ak ñu koy nangol ay nitam yoo xam ni seeni i noonu démb lañ xeex leen ñii ñu boole leen ñii dañ leen doon boole police di leen boo ñu doon boole ñii nii dañ boole ay nit parce que nit yi police di leen jël ñoom ñu ñëw teg seen i liste Mimi Touré day dugal liste wax naa leen ko ci début njëlbeen bi Mimi Touré day dugal liste di dugal ay nitam yoo xam ni pire ennemi Pastef lañ luñ ci deful ñaawteef amul ci télé yi ci rajo yi ci journaux yi di fay booy xaalis di leen xeex wut ay nervi bi takk leen lu ne ñii di leen boole police ñu ngi ci ñu ngi fii nekk ay PCA def benn partage bi gâteau lekk ci Cisane bii lu mu boole ci ay booy Cisane nii tey nekk ministère du commerce daa lu mu boole ci ay nit booy buñ ko gisee dañ doon jooy nag ni kii nan lu mën a nekkaatee fii li ñuy jiite ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc ñun bu ñuy wax dañuy wax pour dimbali Sénégalais yi ñun waxuñu pour émotion bari na lu ñu xam lu ñu waxul

la fa nekk amul koo xam ne xaar naa pour nga xamal ma lu nekk kaw lu ma ci bëgg a xam dama koy xam am naa possibilité yi am naa démarche yi ci suuf moom yéen a mun bu ñu wàccee ci suuf yéen a ma mun fuuf fu ñu laal yéen a fa mun mais bu ñu yéegee ci kaw mun naa la wax si état bi ñu fi ñu fi Sonko dugal mun naa la wax ay nit yu fi Diomaye dugal mun naa la wax ay nit yu fi Mimi Touré dugal mun naa la wax ay nit yu fi ministre dugal mais du lépp laa wax ngeen di wax ay wax di ko jiñ ak Karim Fofana mais dama ne xaw ma kan moo ko fa dugal maa gënoon xam ni Mimi Touré la tey laa leen koy wax nag Samba Dia Samba Ndiaye Mimi Touré ko fa dugal PCA yi mujj yi quatre-vingt pour cent yi Mimi Touré lañ ko dugal mais parce que loolu bu dee ci pale ba bu dee ci pale ba mun naa la fa ne Naby Vision. bu dee ci primature mun naa xam la fa ne bu ma ko soxlaa tey tey tey jël sama téléphone xam la fa waaye ci suuf moom ngeen ma ci mun ko woowaati ci suuf ngeen rey mais ci kaw ci kaw ma leen jëlale information indi kenn du ko kenn.